tey génn na fii di bas Jaxate yàlla na ko yàlla sunu borom yërëm te xaaral àjjana ah, ni mu doon bëggalee nit ñi yàlla na ko sunu borom bëggalee noonu euh, tey moo nekkoon sunu waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Kader ku ko xam-xam seen relation ñoom ñaar euh, ginnaaw nuyoo yi dañ lay jaale li nga xamante ni moom lañ lay moom lañ bokk muy sa xarit bi nga xam ne génn na fi àdduna bàyyi la nga nuyoo. waaw ñu ngi nuyu ñëpp euh, di di la delloo jaale yow tamit. Mm-hmm. parce que comme li nga wax lu ñu bokk lañ ñëpp di jaale Sénégal yëpp di mm-hmm. jaale mboolemu artiste eh, mboolemu nit ñi yëngatu ci culture di jaale aussi famille am mm-hmm. ci boppam muy jabaram ak i doomam ak mm-hmm. uh, famille am magam yem rakkam yem yëpp ñu ngi leen di jaale ki nga xamante ni mooy Bassirou Diakhaté bi nga xam ni missionnaire la woon ci aar waaw uh, ñu ngi lay delloo jàll aussi tamit uh, bas nekkoon sa xarit en dehors de euh, liggéey bi yan relation ngeen amoon. waaw non Bas en fait quand je dis xarit Bas suñu papa la woon ah. suñu papa woon ñun mhm. Tony ay am di. moog mhm. Siriña vraiment. Mhm. Euh, suñuy papa lañu woon. waaw euh, relation boobu lañ am. Hmm. ñun si suñuy jeune comme ay jeunes lañ des fois ñuy bëgg a def yenn yi ci xadar ñoom ñoo ñu doon wàññilu hmm. di ñu jéem a di ñuy yemale hmm. fi ñu war a yem di ñu jàngal àdduna aussi waaw euh, relation bi relation père la relation xarit la euh, vraiment seqoon nañ daal waxtaan waxtaan même morom waaw waxtaan morom am yu bëri dénk nañu ko waaw euh, Tony tamit gënoon nekk waayam bi nga xamante ni ñoom chaque jour ñoom ñooy gisee waaw man su ko daan seet sax ci Tony Laye Tony Laye woo Père Bass mi ngi foofu maa ngi ñëw donc euh, voilà quoi suñu mm. suñu papa la suñu xarit la mm. euh, di ñaan yàlla bi nga xamante ni moom moo sàkk nit def nit mu gënal ko ci lépp lu mu sàkk mm. euh, te bas doon bégal nit ñu ñaan yàlla ni mu xare ko àjjana par rapport ak bég gi mu doon jox doomu aadama ak sénégalais yi. Hmm. Euh, ñu yàlla xare ko àjjana. Hmm. voilà. Euh, tey demu Bass Diakhaté nekk surprise ci sénégalais yëpp bu ñu xëyee yëg ko mu metti ñu bari donte kenn mënul dem di ko jëliwaat euh, est-ce que yëgoon nga feebaram. waaw waaw yëg naa ko yëg naa ko. Hmm. waaw feebaroon na lu yàgg. waaw mais hospitalisé lu yàgg. waaw. mais comme yàllaay dogal yàlla mm-hmm. yàlla moom bu soxlawee kenn mënul xëccoo ak moom. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. mais ci feebaram yéen a ngi doon déggante. Ah, yaa ngi ko doon seeti. si si si naa ko. waxtaan nañ am na yu ñu doon xalaat ak yooyu. Ah, bon. loolu lu lu weesu la yàlla def na lu gën daal. mu ngi noonu mais vraiment yëg naa feebaram seeti naa ko waxtaan nañ si jabaram. waaw wax dëgg yàlla mm. mu nekkoon aussi ku sénégalais yi bëgg. tey bi mu demee sénégalais yu bëri am naqar ak mu mel ni aussi tamit koo xam ne dafa jege woon euh, ñii di acteurs yi wala actrices yi euh, yan leeral nga ñu mën a ci loolu. waaw non dafa doon ko baax rek man en tout cas man xam naa ko lu yàgg te mosuma ko gis vraiment mu xulo mhm. ba si jaxate daawul fekkee xulo mhm. waaw moom su boppam mu daan mer sax day dem toog. Mhm. Ah, ba ba giif soog a ñëw wax. Euh, nit ku baax la. foo ko fekk daal wax dëgg yàlla lu baax rek lay wax. lu mm. baax rek lay def. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. vraiment man man gëm naa ni bu bu ko yàlla fayee xolam moom àjjana la jëm quoi. Mm-hmm. tey ñu gis ni aussi feebaram melul ni comme yeneen feebar yi nga xamante ni nit da doon feebar ñu génn di ko ketal tey mu mel ni vraiment dem ma dem boo xamante ni dem bu dem bu dem bu dem bu sedd la. <laughs> loolu man dama bien placé pour wax sax lu demee noonu. Euh, je pense que dignité ministre bi mu jaaree keroog si suñu bureau fii nii ci mutuelle bi wax nañ ko bëgg nañ vraiment ñu jël en charge dignité artistes yi. Mhm. parce que ngay feebar ñëpp yëg ko. Mhm. Euh, waaw dafay xaw a dafay xaw bizarre daal ci ci gis-gis. Hmm. ci kaw yow per de famille nga voilà nga hmm. yor da nga yor jabar doom. Hmm. vraiment euh, euh, artistes yi pourquoi à chaque fois bu demee nii rek euh, comédiens yi la bu demee nii rek comédiens yi la. je pense que war nañoo jóg suñu bopp. defaraat suñu mutuelle bi mu commencé faj. bu commencé faj dinañ sax. garder suñu dignité parce que mutuelle bu la jëlee en charge dina am vraiment lu bëri loo xamante ni dina la koy yenni waaw ah, di nga koy yenneeku mm-hmm. waaw je pense que foofu la ñu war a dem pour que nit ñi euh, artistes yi mën a am seen dignité mm-hmm. waaw mm-hmm. euh, basu bas dëgg la feebar bi voilà bi mu hospitalisé dafa yàggul dara moo tax waaw euh, aussi bëgguñu woon tamit nit ñëpp di ko yëg waaw loolu tamit mu ngi ci woon ministère yëg nañ ko vraiment def nañ ci lépp li war wax dëgg yàlla ah, ministère ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax ministère de la culture Aline Sow ministre de la culture vraiment def na ci lépp lu ci war. Euh, SODAV aussi. ñëw nañ jàppale ko. ci yenn yi vraiment ñu ngi leen di si fonds social bi. ñoom tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. voilà que mën nga ñu fàttali kañ nga gëj a déggante ak Bass. Euh, samedi non non vendredi. bii passé. waaw vendredi. yan kaddu yan kàddu ngeen mujjee ngeen mujje échangeante. vendredi euh, bon xam nga man man ak moom ay mbalagante rek la quoi. Mm-hmm. Euh, waaw dafa intime la ñuy waxoon man ak moom dafa intime dumu mu du mu du ko mën a wax ni mais parce que mbalak la woon mbalak man ak moom xam nga man ak moom ay morom moroom lañ quoi. Mm-hmm. dama koy eh, wax pour mu reetaan et eh, mm-hmm. vraiment waaw waaw. tey lan nga mën a fàttaliku ci moom loo xamante ni boo toogee yow seul dina la. dina la dina la dina di nga ko fàttaliku ci moom daal. Eh, bëri na Bas dañuy ànd ci lu bëri. dañoo mhm. ànd ak comedy show. Mhm. dem nañ fu ne man Bas Jaxate Sidi Ñaa Tony mhm. docteur Amdi Mignon. Ah, bon def nañ benn temps bu bëri boo xam ne tout le temps ñooy nekk ensemble. voilà. li li may fàttaliku bëri na bëri na. lan moo la gën a marqué aussi ci carrière am. Euh, bi mu joué yi tas na. waaw boobu hmm. vraiment li ma gën a marqué ci carrière am moom la mooy que dafa def personnage hmm. vraiment incarné comme un grand professionnel quoi hmm. vraiment waaw loolu moom rôle boobu mu def marqué na ma trop trop ak mën a way tamit bu ñu daan def suñu comédie musicale vraiment voilà bon nga doon daal tey tey yan témoignage nga mën a def ci moom mooy yi ma def nii rek. baaxam euh, disponibilité am euh, kilifteem maanaam nekk mag di jubbanti ay xale. Mm-hmm. Euh, yu nekkul ci yoon. Mm-hmm. ñàkk meram. Mm-hmm. voilà. ak muritam muritam surtout bas vrai vrai murit la. sëñ Tuubaa buy fay war naa mën a fay bas gëm naa ni dana ko fay. waaw man gëm naa ko bas bas. Mm. parce que vrai murit la. Mhm. Mhm. Mhm. tey xew-xew yu mel nii am te dañuy gis ni souvent bu amee état mën na ñëw première deuxième fois bi génn teg ci loxo mais après dañuy gis ni artistes yu bari après fa ñu mujjee ak seen famille day xaw doy waar est-ce que yéen euh, artistes yi nekk ci association yi. Euh, su yéen a ngi sóoraale nii bu nit jógee wala nit dara dal ko ngeen mën a taxaw wala état teg leen. moom laa lay wax nii mooy mutuelle de santé bi mutuelle de santé de santé des loolu la ministère bi ak président de la république war a ñëw saytu xool. ak direction générale bu CMU. war nañ mën a saytu xool tey lu tax doxul. ñu doxloo ko. nañ ko doxloo bu ñu ko doxloowee vraiment suñu dignité yëpp dinañ ko jël en charge ñun suñu bopp euh, mënuñu toog tout le temps ministère di ñu faj wala benn tiers nit di ñu faj. te bu ñu lay faj bu ñu ñëwee xam nga dafa xaw a man pour man dëgg la ñu ngi def li ñu war a def. Mm. mais dafay gauche tout temps euh, ñu ñëw euh, man loolu laay méttitlu pourquoi artiste rek. def dëgg la dañoo siiw ku siiw. Mm. Mm. sa léppay siiw. waaye war nañ ko mën a jël en charge si de santé vraiment moo gën a jaar yoon. Mm-hmm. waaw. bu ñu demee nag ba nga xam ne la ay évacuation la ak yooyu waaw état bi mën koo jël en charge voilà. ndax tey am na loo xamante ne nii yaa ngi koy réccu ci sa diggante ak Bass muy loo xamante ni tey amoon nga mbébét mu fekkee ko wala nga defal ko ko tey jii mu xëy dëddu la. waaw moo ay yéene rek la yu bari yoo xamante ne amal nañ ko entre ñun quoi. moom am na yoo xam ne vraiment bon ñu si wax. Hmm. mun ñu si wax publiquement nii rek loo xam ne mooy li ma lay am na yoo xam ne ñun lépp suñu privé la. Mhm. Mm, dañ koy waxante waxante nañ ko it. Mhm. bi ñu mujjee gisee tamit waxtaan nañ ko waaw waxtaan nañ. Mhm. en présence de Aline Badara ak jabaram. waaw waxtaan nañ. waxtaan daal. àdduna. tey tey ñu nemmeeku sa kanam biñ koy jël di ko dugal ci oto bi. ñu bari gis ngay tuur xéewal moment yooyu lan nga doon yëg. ah waaye lu ku nekk di yëg rek bu fekkee ni sa waay wàññeeku na. man mhm. loolu la rek quoi. Ah. Mhm. dafa àdduna la. Mhm. àdduna sant yàlla rek. te ñuy sant yàlla rek. sant moom mooy def li ko soob. def na ko. waaw dëggal ay nit lañ tamit. da xool rek sa nit boo xam ni yéen nekkoon nga yéene ko mu jóg. Mm, mi génn keroog loolu laa koy wax. Mm-hmm. yàlla la nga jóg ku ñuy football latéral. Mm-hmm. bon si ay draay tey nga gis ko ñu def ko juróom-ñaari mètre per mm-hmm. def ko ci kees di ko yóbbu. mënatu loolu boppam dara waaw loolu yëfu nit la rek. waaw. li ci li si des mooy ñu ñaan. ñu demande Sénégalais yëpp ñu ñaanal ñaanal Baye ko ñaanal bu baax a baax yàlla xare ko àjjana. Euh, wàccal ko ay kaamil. Mm-hmm. waaw ndax euh, ku dem loolu la loolu la gën a soxla. Mm-hmm. waaw ñu ñaan ñu defal ko ko. Mm-hmm. mu fekk moo des état bi taxaw taxaw moom xaw ma vraiment taxaw daal. je pense que bu ñu taxaw du moom rek la ñuy taxaw ñii fi des ñëpp te feebar ñooñu la ñu war a taxaw. mooy ma waxaat ko encore mooy mutuel de santé des acteurs culturels ñu mën koo taxawal. Mhm. ba nga xamante ni. Mhm. képp ku feebar di nga mën a faju te doo sonn ndax boo leen seetloo Sénégal mhm. dee sax moo gën a cher moo gën a cher dund. ndax dangay am sa malaat mu gën àdduna ñu lay laaj ay xaalis yu bëri pour nga mën a jël koor bi. ñu loolu rek sax dafa metti donc mm. cela veut dire que tey mm. euh, prise en charge boobu noonu ñu war a prendre en charge comme les mutuelles loolu dafa baax ci artiste pour mu mën a diñ je répète et répète encore mm. que ñi euh, faut que état ñu xoolaatal ñu vraiment suñu mutuelle bi euh, dimbali ñu ba mu dox ah euh, nga xam ne képp koo xam ne bëgg naa faju mu jël kartam mu dem mu mu faju ji bu fekkee ne dem na ba am na fu mu toll état jël ko en charge pour mën a évacuer ak yooyu mhm. vraiment loolu laa la laay ñaan loolu laay ñaan mhm. pour que état mën see teg loxo mhm. euh, sama dernière question mu mel ni ñu ngi may signaler li ma mel di waxtu jeex na tey ci ay jikkoom euh, bëri na jikko yoo xamante ni nit ñaa ngi koy wax ci moom lu baax mais tey ban jikkoom moo la gënoon a neex ci moom boo xamante ni tey jël nga ko comme mu nekkoon ci sa idole Mhm. bés du mer. parce mhm. que koy tooñ ba suba du mer bu fekkee mer da koy apaiser. Mhm. waaw. loolu moom loolu lu nit war a jël ci moom la ñun ñëpp. parce que waaw ku dul mer mooy xalaat. boo merul di nga mën a xalaat di def lu baax waaw. waaw moom baas bas daawul daawul mer. waaw bu waxee wax sax après bon day dem yoonam wala xam nga entre ñun. Mhm. voilà. Mhm. gérer quoi. Mhm. Mm. Euh, mu ngi noonu tey moo nekkoon sunu invité fa seen woon ñëw si ak moom waxtaan wu yaatu di ko jaale di jaale képp koo xam ne artiste comédien nga euh, di jaale Sénégal aussi parce que bas moom basu Sénégal la bas international la def fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw ñu ngi ko ñaanal yal na ko sunu borom yërëm te xaaral ko na tey lan ngay tàggatoo ñi nga xamante ni ñoo lay suivre ak ban message ngay lancé aussi. waaw ñu ñu def ni moom ndax mosuñu gis lu ñaaw ñu dégg lu ñaaw ci bas Bass Diakhaté moom génn fii mm-hmm. waaw loolu moom message la mooy xale yi ñu roy ci mag ñi. Mm-hmm. Euh, ñoo xam ni yàqaluñu seen bopp ci Facebook beeg Instagram beeg. Mm-hmm. vraiment waaw nekk nañ ay nit yoo xam ni dund nañ aar bi ba bu ñu fiy jógee. lu baax rek lañ fi def. waaw loolu moom vraiment.